ay agresseurs yi dëkk man ngaa xool kii bi ñu wax ci kaw dama doon xëy hôpital Fann laay liggéeyee mooy xëy fajar 4 heures suñu oto 4 heures lay départ xale yi ñëw ba poste de santé bi saret bi saret bi tax dañ ko sàcc saret bi ñu ngi ko takkee buntu Cambérène lañ ko takkee saretu jaambur la naka ñu naka ñu jël sama sac ba pare ci laa taxaw borom sareet di tamit di daw ay pa nee sen seen sareet la wër man leen ni lañ jaar ñu dugg biir Cambérène di top tank fasé di top tank fasé ba aksi après ay gardien daan na fas bi fi lañ fi lañ ko taxawal xalé yu booy wacc wàcc inte cinq ay boy lañ ay xalé ñent xalé yóbbu ay caabi jaamur sama sama carte d'identité man nga xam ne daal sonn ba bëgg a dee bi moo la ci amoon solo xanaa. carte d'identité bi kese ma sa amoon ndax kenn jàppale ma sama famille. dama ñaan sama sonn sama famille gabu gabu si suuf laay tëdd si digg kër. parce que sëñ Babacar mës naa ñëw sa kër Kambalène Aram Diop moo ma boole.

ab soxna su ñëw fii média set set si nu daan ko agressé si fajar parce que hôpital fan lay liggéeyee donc yóbbu na nañu saagam sac ba nag sa lebe pochette am nekk ak carte d'identité moom li ko ëppal solo mooy carte d'identité nationale am ñu fexe daal eh, ku gis carte d'identité bi wala fu ko sànni nga ñëw indi ko Cambérène wala nga ñëw Média set ñu ngi ci centre commercial Sénégal ma joon lay bi premier étage nga indi nu ko ñun xam nañu fi mu dëkk neen ko ka daal baaxee mais mbiru agresseur yooyu xanaa ñooñu daal la yàgg topp wala lan. ñooñu man gis. Hmm. léegi lan ngay wax kon ci wàllu agression yi am ci réewum Sénégal loolu luy sa xalaat. dafa bëre Cambérène ñëpp Cambérène moom dafa bëre sama rakk bu doon xëy la dogale nañ ko mujj man duma ma génnee nii damay génnee yoonu parcelle mhm. fa ma kar bu may xëy yoonu parcel laay génne du ma génnee Cambérène mhm. ndax Cambérène dafa bëre trop. waaw xale yi nii la toogee si mbedd yi bànd yi. Mhm. mbaa ñoom dëkk lu fa du ay doomi Cambérène quand même xamoo leen. grand grand gabu nii la ñuy toogee si mbedd mi di jaay ay yàmba laajal chef de quartier bu nekk fii. quartier Déggo. waaw laajal chef de quartier bu day ñëw ba si ñoom di wax ak ñoom. Papa jang oui mooy Paa bu sew. Papa Dieng oui. waaw xam naa loolu incha allah <laughs> information bi nga joxe borom dëkk bi dégg na ci donc autorité <laughs> religieuse yi dégg nañ ci chiffrerie eh, yi dégg nañ ci ñëpp dégg nañ ci incha allah xam naa dañ ci bàyyi xel bu nu seetaanee. émission bi nga xamante ni émission spéciale la et di fàttali rek moom lañ ko agressé si fajar bu tey ji si euh, fanweeri fan bu si weeru décembre 2020 donc fii ci wetu hôpital bi si unité 5 nga wax. à l'unité 5 donc mi ngi nii bi mu génnee Cambérène di dem daal à l'unité 5 lañ ko agressé. kon sa sa mujjantal wax lan lay doon la ban appel ngay lancé kon léegi ma pour ma pour ñu mën a tëj débat bi. ak yow nit kon nit def ñu dogaale la boo yarul dara ñu rey la dara moom boo ko yarul dañ lay jam bu ñu fekk si yow dara dañ lay jam moom. maanaam lu yóbbaale ko daal jam bi. ah <laughs> nga ñu jam la nga yóbbaale ko. déedéet bu ñu la fekk si yow dara saak. dañ lay jam bu ñu fekkul daal nga yor dara moom dañ lay jam. mais boo yoree dara du la def dara dañuy jël sa dañuy jël sa yëf. waa boo na boo bañee moom ñu jam la moom. waaw baax na merci <laughs> kon mbokk yi euh, Pape Birame Diong la woon ci waxukaay bi euh, moo di ba coom nekkoon ci ginnaaw caméra bi incha allah di leen jox beneen numéro ci wàllu yu demee nii di wax ni di lancer appel aussi ko am loo xamante ni jaaxal na la wala la leen nga bëgg mu jaar fii ñu ngi lay xaar ñu ngi lay souhaiter la bienvenue boo ñëwee jàlle ka fii jërë ngeen jëf.